équipe nationale bu Sénégal ci wàllum jigéen ñi daal dinañoo qualifié ci demi-finale Afrobasket 2021 bi ñu amalee foofule ca Cameroun. tey si bëccëg gi seen diggante ak Mozambique suñu gaynde yooyu dañoo daal di doon équipe la di Mozambique 74 ak mu nekk ndam li nga xam ne nii moom mooy jàllale équipe nationale bu Sénégal ci demi-finale Afrobasket boobule. si jongante demi-finale boobu la nga xam ne nii suba lañ ko daal di jàpp ndaw Moustapha Gueye yooyu li nañ ko daal di jàkkaarloo ak Nigéria mu nar a nekk jongante bu métti ndax Nigéria moom le moo jëloon ñaari afrobasket yi ñu weesu waaye nag jigéenu Moustapha Gueye yooyu la mën nañoo génn ci match boobu le ndaxte dañoo daal di wane xar kanam bu am solo ci compétition bi le ñu fàttali leen na Sénégal mbébétam ci afrobasket bi mooy lu mu gën a néew daal di bokk ci podium bi. Le site numéro un du sport est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.